Pawlish nuy naa la. ah fay naa la. ci loo nekk. gërëm sunu borom baax a baax. Pawlish lu waraloon teewaay bi tey. parce que fi laa juddoo fi laa yoroo man ak kii ñoo fawandoo sama jaaram mi lu ma lu ma xalaat moo ma ko xalaat loo barke alxuraanu karim ñun nii lu ñu way ci moom lañ koy jëlee ay sësa la ay ay ay xoo yëpp yëpp ci moom lañ koy gisee barke ki may sama jaara sama jaara may ngi nii barke alxuraanu karim billaay wallaay dégg nga ko ah dégg nga ko gor woo jàmbaar woo mbete mbete mi ngi nii sama jaara yi nii ak famille barke Rasulilaay ah Pawlish barke su mi ngi nii barke sëñ maa ko maa kontaan rek tey nag fi sama teewaay fi laa juddoo fi laa yoroo fii nii def naa fi lu ne Alassane Djigo football naa fi def naa fi lu ne ci àddina naa fi façon bii bu ne fi laa a ëmbalee incha allah fi a amee doom laa njëkk a seere bi ci ginnaaw kan yi laa njëkk a Euh, ci benn ma ma dugal benn bii benn gel di ma kii ma jaare ko dama yéeg ñu gis la tarkala macha allah si programme Wally Seck bi xale faramaaren boobu waa euh, affaire bi nekk lu nice loo ciy wax. fii la juddoo fii la daal Wally Sénégal daal. ana sa xarit Ouzin Keita. Ouzin gaañu